alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah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 والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر ليس عليك هداهم لولك وصل wàcc na ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan def di tere sarax jëm ci yéefar yi di daan tere sarax mu jëm ci yéefar yi mu ne pour ñu bàyyi leen ba aja leen nga xam ne bu leen aja loru leen dinañ daw ñëw ci lislaam boo defee ñi mën mën fa jaaree tuub de buur ne laysa alayka di war la yow yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam hudaahum jubal seen yow sa jub bu ñu ñu dugg ci diine islam jub pour ñu ñu dugg ci diine islam waruloo de li la war mooy jotal rek jotal rek yaa wa rasulu ballix wa lam tafal fa ma ballaxta risalati ba loolu rek moom moo moo war jotalal rek walakin li fi nekk allah yàlla yahdi dana mu jubal man yashaaw ku mu soog ci jubam de moom rek mooy jël ku mu soog mu jubal ko kum na ma jubal kenn mënta wax ba nga réer kum na ma itam kenn mënta wax ba nga jub de kon jub ci loxo yàlla rek la nekk réer itam ci loxo yàlla rek la nekk de kum réeral nga réer kum jubal nga jubal de yàlla yàlla jubal sarax nag fi alquran mi ngi wax ne mën na te de sarax moom boo koy saraxee amul kii jullit la amul kii yéefar la amul ki ñoo bokk dina amul kii ñoo bokk dara yow génneel sarax si rek lañ la sant génneel ko rek fa muy dem sa yoon nekku ci da koy doy itam sa yoon nekku ci génne ko rek da koy jox itam sa yoon nekku ci de kon mi ngi noonu de fa am na ci yeneen aaye nag fi muy waxee ne comme ah, sarax ki koy jox si jullit ñi loolu itam da da xan seen xan leen saa ñëw ci suratu tawba de mu ne wa maa tunfiqu la duna leneen ko min xayrin si yiw ci seen alal fa li anfusikum yool ba aji nekk la ñeel leen bu fekkee ne nag li ngeen am seen nag dangeen koo dundale yàlla dina jël yool bi jox leen ko de yool bi yàlla ñeel de wa maa tunfiquuna la dundale ngeen ko illaa ibtixaay wa jillaay ndere sàkku njoolab yàlla su boobaa nag da ko caam bom doy su fekkee ne da ngaa saraxe nag sàkku ci yoonu yàlla kese di nga caam yoonu yàlla bom doy de wa maa tunfiqu la dundale ngeen ko min xayrin ci yow yow fi def na matal fay ga ileekum jëm ci yéen fay gu mag laa tuzlamuuna defut wàññi leen shay'an abadan eh, laa tuzlamuuna defut wàññi leen dara de duñ leen wañi dara duñ leen eh, duñ eh, duñ ci wàññi dara itam loolu waaye dañ leen fay fay gu mat de kon saraxa ngoog soo koy sarax daal saraxeel ngir waji laay rek comme niñ koy jàngee ci dar si passé waaye booy sarax nag pour nit boo nit ki bu la taggee dara mu bañ laa tagg jëriñ loo dara te itam mën na laa tagg tey suba mu la de ndax loolu bokk na ci melokaani doomi aadama yi tey de lil fuqaraay taggal way ñàkk ña wala sarax ñeel na way ñàkk ña ñan alladina ña nga xam ne uxsiru gawaf nañ leen fi sabilillahi ci yoonu yàlla ñi nga xam ne dañoo jël seen bopp rek gaw ci yoonu yàlla rek topp yàlla ni nekkal yàlla rek nga xam ne dañuy topp yàlla rek ci loolu rek lañ nekk soxlaaluñ dara àddina mooy ahlu suufa seen njiit mooy abu hurayrata nekkoon nañ ci ñeenti téeméer ci euh, muhaajiri rek ci way gàddaay ñi rek ñoom dañoo jëloo seen bopp rek gaw ko ci jumaa ji di jaamu yàlla jàngal quran suy xare amee ñu génn ànd ak yonent bi suñ yàngal jotee yonent bi yebal yàngal ñu toppatee jeble ga de mu ne ñooñu nag laa yastatiuna attantuñu darban ak tukki fi lardin ci suuf ngir yaxantu wala ngir war lu ñuy dundee de ñoom seen soxla daal mooy jihaad fi sabilillah ak topp yàlla rek ak jàngaan Quran moo ne yax si bum dana mu njortu dana mu jortu leen aljaahilu aji réeree mbir seen ak ni yaa ñi way doylu mu ne taxafu fi ci fegu de ci seen ak fegu rek fegu giñ fegu ñi ñi dañoo dem sax ba jortu na ñoom ñoom soxla soxlawuñ dara de te fekk ñum ñu ñu soxla lañ ndax am na ñoo xam ne mën na ñoo soxla te duñu laaj dañuy fegu rek duñ sonal kenn ci dara moo ne taarifum dana mu xam leen yow yi aju ñëw ñu waxat bi si maayim seen mandarga seen mandarga ci seen ak e, ak seeni jeexital de mu ne laa yasaluna laajituñu naa sa nit ñi ilxaafan ci tanjambal duñ tam nit ci sonal leen ci dara wala di leen sonal ci alal de dootuñ sonal kenn si dara waaye nag wa maa tunfiquuna dundale ngeen ko min xayrin ci yiw ci seeni alal jëm ci ñoom wala jëm ci ñi nga xam ne aajowoon nañ ko inna allaha naka yàlla alimul aji xam la mu bii ci loolu te danañ ko fay fay gu mat de mu ngoog kon ñi nga xam ne ñoom dañuy toog rek nekkal yàlla rek am soxla ci kenn lu dul ñu bu yàlla woote dañuy dem wuy jë uy si su yonentu bi diglee ñu topp ko lim tere rek ñu bàyyi ko ñooñ dañuy dem ba nga xam ne da nga yaakaar ne soxlawuñ dara fekk ñoo soxla ku dimba ku baax na jëm ci ñoom yàlla dina la fay de fay gu mat de alladina gaa yi nga xam alladina yunfiquuna amwaalahum billeyli wan nahaari sirran wa alaaniyata loolu lu ko wasal wàcc na ci Seydina Ali Seydina Ali dafa demoon ci benn toolu yahut di liggéey bëccëg gi yëpp ñi fay ko ñi fay ko ñeenti dërëm bañ ko fayee ba mu ñëw ci guddi ga mu saraxe benn dërëm bi ci guddi beneen dërëm bi mu saraxe ko ci bëccëg beneen dërëm bi mu saraxe ko ci ci lu nëbb beneen dërëm bi mu saraxe ko ci lu ci ci lu feeñ de moom la yàlla di wax nii mu naan la dina nga xam ne dana danañu dundale amwaalahum alal seen bi leeniñ ci guddi wa nahaari nag bëccëg sirran ci mbóotal wa alaaniyata nag ci feeñal mu ne fa loomaa ji nekk la ci ñoom ajruhum fay seen de su boobaa nag yàlla dina leen fay de fay goo xam ne inda rabbihim si seen borom lay bàyyeekoo de wala xawfun déet ak jàq déet ak ragal alayhim ci ñoom wala hum déet ñoom yaxzanuna ñuy jàq de kon képp aay bi nekkul ci Seydina Ali rek bépp jullit buy doxalee nii Seydina Ali di doxalee nii su boobaa yow yool ba ñeel na la de maanaam loo am rek nga dimbalante ci jullit di nga saraxe ko su boobaa itam yàlla dina la yool yool goo xam ne bés bu nit di tiit wala bés bi ñu ñi di jàq yow doo jàq doo tiit de te doo jaaxle de alladina ñi nga xam ne yàkuluuna dañuy lekk riba riba safaanu saraxa ngoog riba mooy lan mooy li nga xam ne lii dërëm lay jar nga jaayee ko ñaar fukk wala lii ñaar fukk la ngay jar nga jaayee ko ñaari téeméer wala lii ñaari téeméer ngay jar nga jaayee ko junni wala lu ëpp loolu loolu mooy riba mu ne ñi xam ne dañuy lekk riba nag laa yaqumuuna buurtuñu tukkee seen bàmmeel illaa ndare kama yaqumu buur ak kaaka kama yaqumu alladi buur ak kaaka yataqabbatoo dana ko dana mu dana mu nërmal ko cheytaanu cheytaan minal mas ci dof bés bu yàlla di fang jaami nag ku ñëpp di buuru tukkee seen bàmmeel yi dem di wuyu pencam yàlla ki daan def lekk ki daan def riba di ko lekk bii buur cheytaani moo koy nërmal de o defee mu mel ni daana ko torap wala daanu ko téye si meenu dof su buuree rek mu daanuwaat buuree mu daanuwaat fa lay nekk nag ba ba ba ba ba fu soob yàlla de daalika daan loolu bi àndoom na ko ñoom sabab si nañ nekkoon xaalu dañ ñoom wax naan innamal bayu naka jënd ak jaay naka jaay mister riba dafa mel ni comme riba rek jënd ak jaay moom riba rek la mënoo jaay te doo def riba de teel waxuñ dëgg wa alallaahu daganal na yàlla al bayxa jaay wa arama jënd ak jaay wa wa arramatam xaraamal riba riba de yàlla dagan na jënd ak jaay waaye xaraamal na riba de mu ne nag mu ne fa man jaahu ku jot na mu li mu wax nii nga dégg ne yàlla xaraamal na riba nga dégg waar boobu moo xisatan waar bi mi rabbihi mu bàyyi ko ci borom fan taxaatam bayi ci def riba ak lekk riba fa lowun ñeel na ko maa sarafa la dawayoon na ko mooy la la jiitu woon loolu moom yàlla jéggal bàyyee nañ ko ko de waaye waa amruhu mbiram jéggalam nag ndax dinañ ko jéggale du ko jéggal leen laay na ci yàlla day àllaay xool ndax dina ko jéggalam du ko jéggal de waaye wa man xaada ku dellu na mën nag di def riba fa wulaayka ñooñu la gaa yi ki ñuy def loolu asxaabu naare ñooy borom ak safara hum ñoom xaaliduuna way béel lañu way sax lañu fiyaa ci safara de anuñ ci yàlla musal de riba mooy comme tey li wax nii likki lii nga lebal ko nangam wala nga lebal ko nangam nga fayee ko ko triplé ko triplé ko lii fukki dërëm lay jar nga fayee ko ko lu ëpp téeméer ak ñaar fukk wala lii nangam lay jar nga fayee ko lu ëpp loolu lu ëpp loolu de yàlla tere na ko de ndax ñoom nag yamxaqullahu dana mu gott yàlla ar riba def ko tu riba képp kuy def riba yàlla dina got saaral dina yàq saaral dina wàññi sa barkaaral waaye wu rab wa yu rab bi wa yur bi dana mu dolli ah, sadaqaat yi ñi nga xam ne dañuy saraxa de ñi nga xam ne moom day saraxa nag te awala alalam ci yoon yàlla dina dolli ala moom alalam dina ko dina dina dina ko fulandi te itam dina mag eh, yokk alalam bu baax de wallahu yàlla laa yuhibbu du mu yool kulla kafaarin bépp aji xeefara kon ci kuy daganal riba asimin bi aji bakkaara kon ci di kàccoor ba di ko lekk de képp kuy def loolu nag tamal na yàlla du la yool ci dara de inna alladina naka ñaaña amanu gëm nañu wa amilu te ñuy jëf asaalixaati farataay ak naafile wa aqaamu salaata dañuy taawal julli juróom waatu zakaat ñuy jaay azakaay alal seen ca seen juri kër yëpp ak le seeni alal lahum ñaal na leen ajrugum ak fay seen inda rabbihim mu bàyyee ko seen borom wala xawfun déet ak ragal alayhim ci ñoom wala hum déet ñoom yaxzanuna ñuy jàqare ñi nga xam ne nag gëm nañ yàlla di def farataay yaafale yi di taxawal julli juróom joxe azaka yàlla di leen fay fay gu mat te bés bu ñu di jàq di tiit ñoom duñ jàq duñ tiit duñ ragal dara de yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa yi gëm alquran ittaqullaha ragal leen yàlla wa darru te bayyi leen maa baqee la des mina riba ci riba in kuntum nam nekk ngeen muminin way gëm de nde dafa daan nam ñuy def ñi ne yàlla moom bañu riba ba ba ba riba lim bañ bañu riba bu ndaw bi lim wax mooy adaafan mu daafa mooy mooy lim bu bëri nga fil ko fuloon yu bëri loolu lay bañ waaye yàlla na leen déedéet mu ne bàyyi leen riba rek tere naan leen ko baleen ko rek bu leen lekkati riba te itam bu leen jëfalante ci ci ribaa riba nag képp ku koy def yaa ngi yaakaar na solal day dolleeku waaye saalal day wàññeeku de ndax li gën metti mooy nit ki ñëw am yow ci soxla leb la nga lebal ko góor gu ñëw wala jigéen gu ñëw am soxla nga mu leb la amoo dara loo koy def tegal ko ci sart yoo xam ne xam ngeen ne xëll lii waru cee tegul nga loruloo ko nga ñàkkuloo ko ñàkk loo ko personnalitéem ndax moom xaajoo woon rek te faaw mu am aajo bi seetul sax la ko ci nar a fekk nga fulandil ko bor bi fulandil ko ko fulandil fulandi ba mu ëpp li mu waroon a fay sax mu ne loolu loolu xam nga ne baaxut de mu ne eh, buur ne fa in lam tafaalu su fekkee ne defu leen li ma leen wax nag li ma leen diggal faazanu xam leen bi xarbin ci xare min allahi bu ba tukkee ci yàlla wa rasuli ak yonente bi de mu ne na su fekkee ne li ma leen diggal nag defu leen ko xamal ne yàlla moom takk na xare jëm ci yéen de yàlla nag ci ñaari mbir lay takk xare wax na ne man aadaani waliyan faqad azantuhu bil harbi képp ku noonu sama waliyu takk naa xare jëm ci moom ak képp ko itam kuñ tere riba mu kunne def riba yàlla ne takk na xare jëm ci moom de wayn tubtum nem tub ngeen nag fa lakum ñeyal na neen ruusu amwaalikum cosaanu alal seen su fekkee da ngeen tuub ngeen nag la jiitu woon nag moom seen cosaani alal yéena ko moom de laa taslimuuna deefut dolli leen dara wala tuslamuuna deefut wàññi leen dara de kon nag mi maa ngoog bàyyi rek la jiitu woon nag duñ la ca dolli dara loolu tey itam duñ la ci wàññi dara de tuubal rek te te te te nga bàyyi riba de wa in kaana nem nekk na zu asratin ci borom ak jafañal koo xam ne nag danga koo lebal diira leb bi yàgg mu ngi jéem waaye amul lu mu ko fayee te balaa moo am lu ko fayee faa mu sonn lool wala sax amul lum ko fayee daal mu ne fa nadiratun muñandil ko rek muñandil ko ila maysaratin jëm ci waxtu bu jàppandalee de muñandil ko rek ba ba nekk ci waxtu ak jàppandal de soo mënee sax wante saddaqu nga saraxe sadaq saraxe ko xayrun moo gën lakum ñeel leen in kuntum dem nekk ngeen na di xam ci yiw gi nekk ci sarax de maanaam képp koo xam ne dafa am jafe-jafe bor bor ko lool te mënu koo fay yow nga xam ne ne nga nga xam yàlla dimbale la ba nga xam loola nga yéexe jëm ci moom ba ba mën koo fay mu fay ko soo ko mënee sarax itam baax na de yonentu wax na ci xadis ne mu ne man anzara muhassiran aw wadaa anhu azallahu llahu fi zillihi yowm alqiyamati képp ku muñe ndil ku ko loo koo xam ne dafa jafe ñeen ci mbir maanaam ku am jafe-jafe wu bor xaalis wala dara nga ñu nga muñal ko mu ne su boobaa yàlla dina la keral wala nga baal ko ko yàlla dina la keral ëllëg ca keram ge incha allahu de wattaqu ragal leen yow man bés turjauna def na delloo leen fii jëm ca moom nga fii ca bés boobu ilallaay jëm ca yàlla de mu ne bés ragal leen bés boo xam ne na dina ñëw bés bu raglu bés boo xam ne ñun ñu ne yéen ñëpp a cay dellu ñoo ñu ñëpp cey jëm mooy dellu ci yàlla rek mu ne bés boobu dina ñëw de képp ku nekkoon ak yàlla nag te yàlla mu nekk ak yow su boobaa nag di nga am fay goo xam ne kenn kenn dootoo ti dooto jaaxati dootoo jaaxleti ci dara de mënut suma tuwafa dépp matal ak fay kullu nafsin bépp bakkan maa kasabat la mu fàggu woon ci lu baax wala ci lu bon la nga fàggu rek lañ lay fay rek waxumte ñoom laa yus la mun a déeful wàññi leen dara ci seen yiw wala ñu leen yokkal dara jëm ci seeni ñaaw ñaawteef de nit ki dina nekkal yàlla yàlla nekk ak moom nit ki dina nekk yàlla yàgg yàlla du nekk yàlla du nekk ak moom de ndax mi ngi jàpp ne mu ngi nekkal yàlla fekk ci boppam rek la nekk nekkalul nekkal nekkalul yàlla ci dara de loolu nag nit ñu bari ci loolu lañ nekk ñu foore ñu ngi nekkal yàlla te nekkaluñ yàlla seen bopp rek lañ nekk de moo tax nit ki su fekkee ne yow boo da ngaa war a góorgóorlu rek ni benn waaye waxoon mu ne eh, eh, bu fekkee ne mu eh, yàlla wàccal suufam si génnal wàccal suufam suufam si te itam bul xool asamaanam si xam nga loolu moom métti na torop moo tax da ngaa war a nekkal yàlla rek yal na yàlla jubal ñu bañ bañ mën a xam nu ñuy nekkal yàlla bañ nekk ak moom de waxoon naa sànq ne sarax. dina dimbale jaam te itam fay gi nga ci am de fay gi nga ciy am fay googu ci yàlla direct lay bàyyeekoo yeneen fay yi sax ci yàlla direct lay bàyyeekoo waaye fay moom dafa gën a mën a fulu benn waaye doon na ci saaraa bi mar dab ko mar gu metti mu ñëw ba ci ba gis benn teen mu daal di sul summi botom soppi ko baag ak goj ci ci ci laasa yi def ko baag ak goj tànk daal di naan dégg nga wala ca nam ko so ca nam utee baag goj daal ci lu gën a wóor nam utee baag ak goj daal mu tànk dànk tànk daal di naan bi naanee ba biiram fees eh, eh, mu daldi di gëstu yem ci xaj bi fekk eh, baa ngi xikkat ma ma ma ngay yelxas ma ngay tàllal làmmiñ ba rek mat ko bëgg a waa ji gëstu daal di yem bi mu ne kii de yi li ma daloon moom moo ko dal mu daal di jëy dafa mar mu daal di jële ci dàllam bi tànkal ko ndox ci teen bi jox ko mu naan ba màndi loolu mu def yiw bu ndaw boobu mu def ca la ko yàlla jubalee rek ba ca ko ba mu àddina ci la ko yàlla jugalee aljanna de kon su fekkee de kooku nag moo mën a def lu loolu mën a def loolu ci mala boobu ci lu baax ba yàlla xool yërmaande googu waa ji am ci xaj bi ba mën koo jéggal góorgóorlu rek te nga dabaatal fekk yaa ngi dund dabaatal rek nga jéem a def lu baax ci jëmee ko ci jaamu yàlla yi di jëmee ko ci eh, eh, mboolem jaamu yàlla yi de su boobaa nag yàlla dina la fay fay goo xam ne dootoo perte te de perte du topp bay laa yomi diine de yaa ayyuha alladina amanu yéen gaa yi gëm alquran ida tadaayantum nem jëflante jëflante ngeen nem nara ngeen jëflante bi ci bor ni ki jënd jaay wala tayle wala deme ni ko demee ni noonu dana ci ñëw mu ne ilaa ajalin musamman jëm ci diir buñ xam faktubuhu bind leen ko de ngir dëgërloo ko rek ngir sukkandikoo ko rek ndigal lii nag moom pour defar sa àdduna rek la du farata du sunna waaye pour defar sa àdduna pour nga xeew rek ndax boo boo soo soo soo leblantee nit soo ko bindee bés bu problème ne lay am nga bind ko su boobaa xuloo du caam werante du caam benn jafe-jafe du caam loolu moo tax yàlla pour defar dindu nit ki ak dimbale nit ki jàppandal ko ba mu mën a xam ne du am benn jafe-jafe ci dundam moo tax lii dafa baax soo jëflanteeg nit ci wàllu jënd ak jaay wala ci boor wala ci leneen bind ko rek mënoo fekk buubu bind ko wala yëgtu bu na bind borom moom moom borom bor bi benn kum diggante seen wala kuy bind bo kuy bind kuy kuy kuy bind kuy bor bi xaati bun ay ay benn kum diggante seen xaati bun aji bind bilaa dinañ ci maandu de ku fekkee ne nag kii bind nag moom na ko bind ci maandu rek. bind bind gu leer naññi bés bi a ma lebaloon nangam bés bi laa koy fay bés bu jotee nga fay ko rek wala bés bi bés boo ko fayee bu ñëwaatee na fayuloo ko nga yénne kayiti rek wan ko ne ko mu ngi nii rek wala ya aba bum bañ <clears throat> kaati bun aji bind an yëgtu booba bindat su suñ ko xooyee su fekkee dañ laa woon pour nga bind pour nga bind pour nga bindal nit ki yow bul bañ de bindal rek kama allamahu laaw comme ni la ko yàlla xamalee ci ngëneel ak bind waaye bul ci nayta bul ci bañ de fal yaktub na bind wal yumlil na fite mooy mooy mooy na nit ki wax li mbir mi demee rek mu bind ko alladi ka xam ne alay war na ci mu alxaqu dëgg de alxaqu bor ba de su boobaa nag ñoon nañ koy bindee kii yaamee bor moom mooy bind temps la ma amel bésab tey koy fay wala nangam la ma bésam nangam la ma koy fay loolu yëpp mu ne walaa yaqasta bu mu wàññi min wal yattaqillaa na ragal yàlla rabbahu boroomam ne ragal yàlla nag ca koy bind na ko bind bindu maanu bu mu jéggi dayoo te bu mu ci boole lu ci bokkut de mu ne walaa yaqasu bu mu wàññi minu ca mbind mooma cheyan dara fa in kaana nam nekk na ladi alayhi ka xam ne war na ci moom alxaqu bor ba shafihan muy aji yàqaakoon aw daifan wala muy aji aji lompañ mooy koo xam ne xale la wala màgget na ba mënatute binde wala sax moom du jàpp dafay fàttali wala dafay yàq rek mu ne aw laa yastatixu wala attantu ak ñu la ba fitee wa moom ngir ngir ngir ngir sàggantee fam wala réeram te mënta binde mu ne fal yum li na na te mooy kilifaam moo xam waajuram moom xale bi wala kuñ denk ay mbiram daal bil adlin ci maandu de bés bi loolu de am nag buur ne wastashhidu seede looleen wër leen ay seede ci bor boobu ngeen di bind shahide yi ñaari seede ñaari seede mbiri jaalikum ci ay suy góor góor seen de ñaari góore seede mbir moomu naka jëkk mbir mu nekk la lu ci ëpp ci diine du <clears throat> tax ñaari jigéen mi man tar doonat na xam ne gërëm nañ mina sola ci seede gëre lu tax ñaari jigéen jigéen dafay gaaw a fàtte loolu mooy aadaay jigéen su fekkee ne kenn ki fàtte na keneen ki fàttalin morom bi keneen ki fàtte itam keneen ki fàttalin morom loolu lañ ci loolu lañ ci jublu rek an tabdilla ba fàtteat ihdaahuma kenn ci ñoom ñaar fa tuzakkir te fàttali kenn ci ñoom ñaar uxraa keneen ke de wala yaa ba bum bañ a shuhadaa way seede zama duu bu wootee jëm ci moom de su fekkee nañ laawoo pour nga ñëw seede ñëwal wuy seeg waaye bul bañ a de wala tasamu bul yokkat maanaam bul naagu ci bañ bañ bind loolu an takt boobu ba nga bindat ko saxiran moo xam lu tuuti la aw kabiran wala wala lu néew la aw kabiran wala lu mag de mooy lu tuuti lu bëri yëpp bor daal bindal rek moo gën a wóor de ilaa jëli dem ca diir bañ xam de daalika loolu bind boobu aqsatun moo gën a maanu indallahi fa yàlla waa qoomunta moo gën a jub ila li shahaadati ñeer seeda de waa atinaa te moo gën a jege allah an tartaabu ba defu si kat ci bés bu jot euh, dig ba jotee waa nag werante dootu ca de bu boobaa werante du ca am de illa an takunu dafa nekk dafa tàbbi ci diggante bi tijaaratan euh, ak jënd ak jaay xaadaratin buy aji ci teew tuddiru naa def na jox ko benn kum diggante seen de su fekkee ne nag kii dafay jaay moom teew mi teew rek bu baax moom fa waaye su fekkee diggante leblante la bindal rek bu boobaa nag boo bindee bul naagu bul xeeb boo xam lu tuuti la wala bu bëri la bind ko rek moo gën a wóor de waaye fekkee teew mi teew la moom am indi su boobaa loolu moom jarut bind de wala sa aleykum déet di war leen junaaxun bàkkaar allah taktubuwaa ba bu neen bindu su ko bindu wa ashhidu seede leen isaato isa tabayaatum su ngeen ci ni ngeen jëflantee ci jënd ak jaay wala yu daaru bum mu lor kaatibun aji bind wala shahidun di sàggeen ak aji seede kooku kii kay bind ak kay seede yëpp buñ buñ buñ kenn ci ñoom ñaari de ka leb la ka ak kiñ lebal yëpp bu ñaari ñoo buñ ci lor de ci kenn de wayn nem def ngeen nag le léeg li xam ne tere nañ leen ko ngeen def ko fa innahu xam leen naka ñoom ñooñu fusuuqun ay waay waay génn topp lañ de bikum ci yéen ñooñu ay génn topp lañ de ay faasex lañ wattaqullaha ragal leen yàlla wa yuallimukumullaahu xam se ne na yàlla wallaahu yàlla wa wattaqullaha ragal leen yàlla wa yuallimukum te xama leen allaahu yàlla seen mbir yi àdduna ak liy baaxal seen i mbir wallaahu yàlla alimun aji xam na mu bi kulli shay'in ci lépp lëf de allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim